kii xam ngeen fu ñu jëm kii mooy Angélique Manga journaliste la woon bëgg Macky Sall ba créer mouvement am nekk fi nga xam ne mooy Ziguinchor moom tamit nañ xool ndax ci ñu fal la bokk wala ci ñu fol lañ bokk Angélique Manga ca biir Casamance ca këram ñu xool lu fa xew jërëjëf waaw kasumay kasumay kepp kaa nii ni kasa koto boolo ah président tey lay def kii bi donc waxal militants yi ñoom ñëpp ñu disposer bu soobee yàlla bu fekkee président tollanti na affaire bi rek uh-huh. on va faire une petite fête nag ci bunt bi ah, ah, bu soobee yàlla at lu tax yow instant bii nga xam ne ci laa nekk ci liggéey bii. Mm. microfinance yi man maa ko yor. la financement yi nga xam ne PME yi ndaw yi man maa ko yor. dëgg incha allah rabbi président Macky Sall fi ma jaar ak moom ci li nga xam ne mooy mobilisation. bi mu ñëwee Casamance. Mm. yow xam ma ne waxu Madické Niang bi man maa ko def man maa toj fii ba mu nar a jaax. <laughs> Ah, ah yow tamit déedéet rafetal njort rek déedéet rafetal njort léegi wuyu ma donc femmes yi nga xam ne ñoom laa waroon financé ci projet bi. il faut ma commencer parce que man du taxaw. waaw man je continue la liggéey bi dama koy continuer. Eh, man loolu du ma stressé xanaa yow nga seetaan télé mais pour xanaa kay sam tour boo ko déggee. Hmm. da ngay déggaat beneen ministère bu kawe njort waaye war nga déggaat ma même place bi. Ah. jàppal jàppal télé bi. jàppal jàppal xaaral ma xool financement 300 millions pour GIE Femmes de Liberté Casamance. jàppal jàppal commencé na man du déglu loolu. bu sax jubilé boo déggee sama tur bu sax jubilé. sa télé bi yow. <laughs> madame Néné Fatoumata Tall. <laughs> ministre. voilà de la jeunesse 900 millions. yow yaa ngi ci concentration bi. t'inquiète pas damay jàll yow tamit li ma liggéeyal Macky Sall mii. kaay defal ma pédicure yow en attendant ngay dégg sama yow jàppal ma pédicure manucure man. Diop ministre de l'emploi formation professionnelle. allo. et de l'artisanat. waa Bignona préparé leen màkk kay ren di dem. madame Ndeye ah da ngeen seetaan télé. bu leen stressé jàll. ministre de l'économie <laughs> eh, numérique. waa Casamance yëpp ngi seetaan de. ñoom dañoo ne ci film waaye man maa ngi ci jàmm. le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 7 avril 2019. ñu ngi continué ba tey war a. Ah, nga ah. de la formation professionnelle et de l'artisanat. xaaral ma xool ci tuuti rek yéen a. madame Ndeye Tické Diop. <laughs> calme-toi Diop day baax. yii li ma liggéey noppil Casamance que léegi pour commencer jëlal téléphone may la am. fait à Dakar le 7 avril 2019. Angélique. Ah. doo ko réewaan doo ko arrière ma xoolal. pare nañu ko télé bi day arrière arrière ko. pare nañu. lii ma déglu dafa na fait à Dakar. dama xamul ndax day commencé war a fa tëj. Ah, arrière ko ma déglu arrière ko bësal bouton bi day arrière. 2019 763. waaw portant nomination de secrétaire. waaw d'État. Ah, le président de la République vu la constitution. sama doom ba eh naxal xale bi maa ngi ñëw nax ko. et des télécommunications. Ah. yow naxal xale bi maa boot ko naxal. le présent décret sera publié ah. fait sa post bi am na ku ko jox de dégg am na beneen ministre bu ñu ko jox. jeex na. gouvernement ministre gouvernement Sénégal la war bu Gambie. bëri na bu Sénégal bi la bu Macky bi la. kon Macky nii la mujjee ak man. duma duma jooy. déedéet jaru ko. xoolal si la xoolal. billaay wallaay taalaay je vais même pas pleurer. billaay jaru ko non non xam nga lu tax ma ne duma jooy. jaru eh. mm. ko Angélique. bàyyi ma concentré sama njaboot ba pare. dëgg la. je vais rendre. dëgg la. Angélique déet. boo sama doom ci. 16 ah 16 ah doy na waar de li ñu daj ci politique bi fii ci fii ci biir Casamance metti na torop nag dëgg yàlla metti na. déedéet déedéet garaawul kaay déedéet garaaw ki war a jooy kay bu jooyul garaaw. ah nañu yuuxu waay. déedéet garaaw. ah nañu yuuxu. dégg nga yuuxu Macky. Macky. Angélique Macky waayi Angélique déet waayi woy Macky la ah, ah, ah, Angélique Macky waayi